kon yooyu pour ñu dafa ci bokk ci la ci ñu ci en tant que chef d'état en tant que gouvernement mu organiser ay assise madame ak toog pencoo goo xam dañ koy lu arab ak jafe-jafe ak situation yi nga la au Sénégal nous dund ñu aussi pour solutionner jafe-jafe yooyu mooy il faut que dafa jot Sénégal am une université arabo islamique boo xam ne dafay am ay filière professionnelle am benn université lañ am orientation mu université Cheikh Anta Diop département arabe boo xam ne mi ngi ñu ngi ko mi ngi ñu ngi ko taxawaloon en 1957 ba léegi amul benn réforme amul benn modification te tey fi nekk nii dépassé nañ bi ñu bi la instauré le baccalauréat arabe en 2013 ak léegi dépassé nañ 30 mille bacheliers yoo xamante ne. bagu état bi lañu yore sans compter ñi nga xamné ñoy ñooy jàngir bitim réew du ñibisi ñu bolé ci doléance yoy nga xamné mom lañu waxon son excellence aussi monsieur le président de la république moy mu fexe ba wala bok ñu fexe ba mbooleem kurel go xamné dafa nek ci réew mi ta muy topato walu formation walu financement walu encadrement ñu fexe ba ubbi ko pour les arabisants parce que catégorie lañ boo xam ne dañ leen a yàgg ber dañ leen a yàgg marginaliser ñu gis ne pour ñu indiwaat euh, leen ba ñu mën a nekk ay acteurs de développement dafa laaj ñu xoolaat formation bi xoolaat programme bi waaye itam ciblé leen ci ay programme yu spécifique pour que encadrer leen mën leen organiser dafa leen ay financement ñu mën ci génn ndax arabophone Sénégal amuñu lu dul jàngale te jàngale moomu am. lu jël sax lu mat 1 pour cent ci nombre diplômés yi nga xam ne ñoom ñooy génn chaque année ni amuñu beneen débouché ci réew mi